waaw si la Adja Mbaye Ndiob. te ah. arrêté calendrier boo ma soxlaa doon dama baaxaat kon man jàpp naa ne du ma la nax maa ngi leen di nuyu nag bu baax a baax a baax soxna Rokhaya Tall moom yow moom dinañ mën a def rek. ndax nit da ngay am responsabilité am fulla am fayda taxaw loolu la ñuy doyee li ñu nekk nag élection législative la mm-hmm. luy élection législative mooy tabb ay député yu ñu war a tawal que pencum ndaw réew ma. ci élection yooyu lañu nekk nekkuñu ci élection présidentielle nekkuñu ci élection maire élection bi ñu nekk day élection bu sérieuse ndax élection la boo xam ne ci la ñuy voté li nga xamante ni yéen ñi nga xam ne yéen lay wuyoo femme de ménage nga xam ne bu kër yi stable yéen la bu bu nee changé seen i statut assemblée nationale lañ ko war a yóbbu porté ko ñu voté ko jigéen ñi nga xamante ni dañoo vulnérable bu ñu buggee dëgëral seen tànk dañoo war a yóbbu projet de loi assemblée nationale voté ko ci élection boobu la ñu nekk boobu rek defe naa ne président Abdoulaye Sylla dafa baax am yërmande gëm boppam rek moo tax mu naan kaay leen ñu àndandoo mais ñun ñoo ko waroon a fekk mu toog ñu ne ko kaay jiite ñu ko àndandoo dem ndax koo xam ne mooy nitu mooy kilifa politique boo xam ne. xam lu sëñ Fatou te def naa ne ku nekk dégg na ko. na ko def moo ko def de. na ba buggul woon ak politique de. ku nekk dégg na xam lu sëñ Cheikh Sidi Mokhtar. wallaahi bu gàmmu jotee fu nekk fu këru diine am. Mhm. ci Sénégal gii. Euh, dana fa dugal ndawal ak la koy defal. dafa yaakaar ne kooku bu jógee taxaw ni bëgg naa réew mi naa ne mën nañ koo gëm di bëgg kooku nag moom moo defal suñu liste jiite ko soxna Delphine may dalal sa xel bu baax. ki ñu àndal lu nit kuy naxaate ku ñu àndal man de ñoo ko xamee léegi mosuma wax lu teggee ki ñu àndal du nit koo xam ne di wax lu nekkul ci moom ki ñu àndal du ragal du kuy laaxatu yii moom man mën naa koo mën naa koo seede si moom maa ngi nuyu suñu sœur Zeynab Balla Bamba bu baax nga xam ne moom ci conseiller en communication président yi ci bokk yéen nag dama leen di gërëm parce que jigéen ñi ñooy gagné élection. dëgg la léegi nag damaa bëgg ñu waxtaan rek bu ñu bu ñu wéeroo si fii diggante fii ak élection yéen dama leen yéen invité naa leen dimanche dañuy lancé suñu suñu coalition Téeru bi. ñun engagé nañ fii lañ bokk léegi. yéen sa coalition maa ngay tas de am na ñu ñëw de tey ngaa ñëw. non non non non dañuy ñëw xam nga li tax ma bëgg ñu àndandoo nekk du élection législative bi rek bu jeexee ñu fantasisoo déedéet ku nekk xam na ni président dafa njëkk a teg lu ñuy wax c man bi ma ko nee C50 mooy lan mu ne ma C50 mooy syndicat bu patronat ma ne ko waaye ah, yéen yéen ngeen am li ngeen di am ba pare mu ne ma déet dafa ndànk syndicat patronat bi xam nga noo ko déggee ma ne ko waaw ah, mu ne ma jaaykatu gerte bi mais bii jaay gerte kii juub kii jaay gerte ba ci man mii di président Ecotra ñoo ci bokk yéen xam nga kooku kaay ñu àndandoo lu kuy dem bàyyi mm-hmm. ma ne ko président lan moo tax nga bëgg a dugg ci politique gannaaw ba nga xamee ne yow yàlla defal na la lépp yow yàlla defal na la ko lan moo tax nga bëgg a dugg ci politique mu ne damaa jaar ci sama àdduna fi ma jaar bari ay fakk-fakk ba àgg fi ma àgg ma jàpp sama rakk yi war a ñëw sama doom yi war a ñëw war nekk ay entrepreneur war nekk ay champion ci secteur privé man damaa war a faxas yoon bi ba yoon yi gàkk-gàkk ak yi nga xam ne naa yoon bi ma puusal leen ko kooku nag su jàppee ne jiital na ab liste liste bi ñu jiit ñu ci jigéen ñi ñu teg ci suñu bàjjen wala saar ku nekk xam na ko ci fulla ci fayda ci taxawaay. jàmbaar a wala saar wala saar yi mooy moo topp ci ginnaaw président Abdoulaye Sylla ñun daal suul lañ ci ginnaaw xam ngeen ni kooku pare wul pour naxaat man mi El Hadj Ousmane Thiam Kébé maa ngi suñu jeeg bu rafet bii nga xam ni moo nekkoon président moo nekkoon directeur général marché de national bu président Macky Sall ñëw ànd ak Abdoulaye Sylla soxna Lalla Fall yi nekk ci listu Ndakaaru Njaay si nga xam ni sànq bi lay wax boppam waaye bu la waxoon boppam dëgg nga xam ni kilifa euh, suñu mbokk mu baax mi di soxna Émilie sa Émilie bokk ci liste may fàttali ni keroog ba ñuy defar liste bi fu ñu waxee wax wax wax ne Émilie Sane président bi tegal leen ma ko fii parce que damaa bëgg sama liste bi ñëpp gis seen bopp man nag ñii dama leen a xam ndax man sama xarit ci ci ci nekk sama xarit mankaaj la muy Alexis Campane ñii ñii xam naa leen bu baax a baax a baax défit mii léegi mii xam naa ko bu baax baax a baax moo tax daal damay dalal seen xel bu baax ngeen xam ne ñun dañ leen a woo pour ñu àndandoo ak yéen liggéey liggéey bi ñuy liggéey ak yéen nag du élection yi rek moo tax mu ci mu ci mu mu jeex dañuy àndandoog yéen ci élection yi bu élection yi jeexee ñu àndandoog yéen parce que secteur privé bi le président gëm te secteur privé bi mooy jigéen ñi mooy ñu nekk ci ci ci kër yi mooy mooy mooy femme de ménage yi mooy menuisier yi mooy commerçante yi loolu pour il faut ñu valoriser ko ni ñu koy valoriser mooy dañuy porter à l' national bu fekkee yàlla may nañu ñu am majorité dañuy porter à l' assemblée nationale ay textes yoo xam ne mooy réformer Sénégal parce que Sénégal nag bu bees boo déggee ñu ne la àndal beesal Sénégal mooy texte yi li si ëpp ay 1960 la ay neuf boobu ak léegi réalité bi am ak réalité boobu du benn te assemblée national kese la ñu mën a porter texte dugal ko député yi voté ko moo muy loo xam ni wër na askan bi yëpp looloo tax ñu leen di woo soxna def del si dina am man maa ko wax ah lu ma mënul wax nag mooy wax ca tee muñ ca rafet li ma mënul wax nag moom mooy suba la ginnaaw suba ginnaawaat suba xaw ma ko waaye sa sa yóbbante moom président dina ko jot te jotaay bi man maa la ko wax fii si biir mbooloo dana am ah, waaw bu dee loolu rek mooy seen doléance moom ñi ngeen dalal seen xel léegi nag li ci des mooy dañoo bëgg ngeen campagne ndax yéen ñii ci seen campagne soxna def fi si la falu Émilie Zademi yi départ ah, parce que moom ci liste nationale bi la nekk mm-hmm. falu Fatmata mii ci Cheikh Ndiaye moom bu falul garaaw <laughs> ndax bu yëg koy Cheikh Ndiaye moom bu falul ah, ah, garaaw loolu ah, moom moom ay hélicoptère da nga koy yóbbu assemblée nationale mu koy wax eh, wax hélicoptère moom bu falul garaaw en tout cas daal dañuy dalal seen xel bu baax ni leen ñun liste bi am liste responsabilité liste la boo xam ni dañu jël engagement pour taxawu Sénégal ndax Sénégal ni ko nit ñi waxee léegi ñetti pouvoir la pouvoir exécutif pouvoir judiciaire ak pouvoir législatif te pouvoir législatif boobu dafa am solo ci réew mi ndax moom mooy permettre ni dund bi war a nekkee moom mooy permettre bu ñu juutuwee bu ñu juuti xam naa gars yi xam nañ juuti su suñu juutuwee ba ngoon wala ñu patente ba ngoon wala entreprise dem fay impôt sur le revenu ba année bi jeex ñu juug alalu Sénégal boobu ne dañ koy séddoo waaye loolu nag ñeneen fay toogal du ngeen ko tànn dama ne li su président Abdoulaye Sylla bi damaa bëgg ngeen bàyyi ko xel mooy bi wóor de ngeen nekk ci campagne porte à seen doléance yëpp nag moom président dina si jot Abdoulaye Sylla defkatu bu baax dëgg la loolu moom kay da xamul ñëpp waaye ñëpp a xam ko Abdoulaye Sylla wala Abdoulaye baax la dina ma wax ni ma dégg naa diw dafa feebar demal jox ko nangam bu ma ci tudd bu ma ci feeñ kooku defkatu lu baax la kooku defkatu bu baax la kooku du kuy naxaate du kuy wurut du kuy luubu du kuy manipuler waaw te bu loolu weesee nag réew mi fi ñu nii dafa am loo xam ne ñun dañ koo doon soxna si toog borom lu borom kii bu rafet bii dama koo xool benn yoon la fi mooy bañ nee sëriñ Fallou dañ nee sëriñ Fallou rek mu fi tas wala fi tas waan ah léegi xam nga lii lu muy wund wax ñun Sénégal dafa am lu ñu doon ñun Sénégal dafa am lu doon doon ko ci suñuy maam doon ko ci suñuy baay muy suñu pas-pas muy waa kër Cheikh Cheikh Al waa kër borom Touba muy waa kër Cheikh Sidi Hadji Malick muy waa kër Boukounta Ndiassane muy suñu mbokk yi nekk si ñàngu bi Sénégal bu ñu nee suñu bien-être ak suñu bien bon vivre en commun mooy ñun ñëpp dañoo nekk benn loolu nag damaa jàpp ne ñun dañ koo war a sàmm te loolu sàmm ko day taxaw day bokk ci ñu taxaw teg ay nit ñoo xam ne fa ñuy jëlee décision danañ xam lan lan war a jël danañ xam lan mooy kilifa diine danañ xam lan mooy kilifa aada waaye danañ xam lan mooy kàddu joxe kàddu loolu nag bu amee ci réew ba réew mi toll fii mboolem réew mi dañoo war a taxaw ma jàpp ne président Abdoulaye Sylla bu jógee taxaw gannaaw ba nga xamee ni yàlla may na ko boppam ba macha allah dama jàpp ne ñun waruñoo soñu ci dara ñun ñoo ko war di soñu naan ko président ñi ngi ci terrain bi président ñi ngi ñi ngi proximité président ñi ngi def nangam delfi maag yow moom dinaa ñëw mbaaw maa ngi yow xam yow yow dinañ dinañ mbaaw yéen ñi ci def ñëpp nag maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jotaay bi nag dafa gàtt te ñu ngi leen di invité tamit ku ci am jot nga ñëw ci lancement wu dimanche ku ñëw ci dimanche moom di nga jàkkaarloo président yi waaye waaye ñii dañ ñoo tontu te waxaguñu ak ñoom ba pare ñu ñëw toog jàkkaarloo ñoom ñu lokkati suñu lanc xam nga lu tax ñu lokkati suñu lanc ñun dañoo yàgg ci yoonu politique ñun dañoo daw ba dee te barke sëñ Fallou ku fi falu ñoo la fal fii ku fi falu ñoo la sa dënn fëkk sa dënn nga man la ñun ñii la waaye nag xamuñu gëddu jigéen te dañoo bëgg képp ku ñuy jàkkaarloo intermédiaire soxlaatuñ ko ñun dañoo sonn ci intermédiaire Abdoulaye Sylla daf ñu soxla fi ñu leen nekki du yow kese yaay toog ak moom bëgg nañ nag loo bëgg ñu bëgg ko foo dem ñu dem fa eh boo ñu nee demal fecc àll ba fekk gaynde ku xiif nga ruux ko mu tëb dañ koy def ndax am nañ fi dem eh waaye Abdoulaye Sylla daa bëgg nga jàkkaarloog moom waxtaan ak moom ñun nañu toog ñu wax ko lu ñu bëgg mu xam ñu ngay ñan mu jox suñu gëdd ñu delloo ko li mu moom mooy le coordonnateur de la jeunesse de And Beesal Sénégal sëñ Khadim Ngom di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi fi teew di leen di jaajëfal nag di rafetlu bu baax tey toogaay bi fii parce que nag xëy na yàgg na yàggul mais tamit nag foog naa ne ndaje bi euh, lu naan dañ naan lu neeral li ko yëngala ko yëngal tey suñ fi ñëwee ñun ñu doon xaar tamit ngeen xaar ñu ñu toog foog naa ne c'est juste pour l'intérêt euh, général tey du ñu nuyu kenn nag te ñu nuyu ki nga xam ne tey mooy kilifa kër gi kii tax ñu toog fi ki nga xam ne tamit xëy na dañ naan moo yëngal Sénégal kii waral lii yëpp muy le président Abdoulaye Sylla à travers son coordonnateur national et international di Ousmane Thiam. Émile Zale wax na ko léegi dañu nekk ay chef de parti nekk ay ndaw Émile bennoo la ñu xamante muy sama mag te foog naa dañ naan politique léegi dafa salté mais politique famille dina fi juddu. tuddante doom dina fa am mbokk dina fa juddu leneen ak leneen dina fa juddu moo tax damay daanelee damay commencer moom fu mu daanelee mooy politique gu naxaate foog naa ne ñi nga xam ne dañoo ñëw ñun bennoo la ñu nekkoon pendant 12 ans ñun Macky Sall lañ am àndal am tant qu'allié mais xam nga nit sooy am ak nit yaakaar mooy tax nit suy dem ci sëriñam sax yaakaar moo tax muy am sëriñ yaakaar mooy tax nit di jël doomam di ko dugal école. di def si moom alal pour su yaakaar moo tax nit di am wasit yaakaar tey moo tax ñun ñu bàyyi lépp liñ doon def ànd ak le président Abdoulaye Sylla te tamit nag yaakaar boobu ñun dañoo jàpp ñu du tas parce que dañu ànd ak goro tey Émile soo nee ànd naxaate boobu dafay jeex ñun fi ñu ànd 12 lañu fa def duñ fa xalaat suñ fa xalaat woon sax ngeen jël man je suis BCA ak Macky Sall je suis général. chef de parti la malgré mon jeune âge mais lu ñu neex pour ñu naqari c'est derrière nous mais bañ bés ba ma toogee Abdoulaye Sylla il a su me convaincre lu tax parce que moom dafay incarner profil yu bëri maanaam su may wax incarnation si lan laa koy waxee soo xoolee côté religieux maanaam si religion diine soo demee diine Abdoulaye Sylla malgré son jeune âge nga dem Tivaouane nga dem Touba nga dem Ndiassane nga dem Louga foo munti dem këru kilifa diina jàng bi foo munti dem ñu ngi wax lu baax ak lu rafet lu mu fa def soo demee Touba xabru sëñ Fallou def na fa 2 milliards 800 dem fa def de 1 milliard donc kooku bo ñëwul ni damay féete dafa ne ma dama yemale ñëpp ñu ñëw si jeunesse xale yi mun nañoo le président Abdoulaye Sylla ku ko xam da nga xam si champion économique bi mu doon moom dafay nekk le PDG de Ecotra Ecotra c'est un groupe groupe bi nga xam ne dafay regrouper plusieurs entreprises nationales et multinationales tey Ecotra maanaam mi ngi euh, recruter deux mille à deux mille cinq cents jeunes mag ndaw toutes les nationalités confondues mais mu nekk emploi direct et indirect kon kooku mun naa wax ni ba muy participer ci économie réew mi xaarul ba bëgg réew muy doog a jóg pour li jën ci Sénégal tey suñu ñëwee ci jigéen mais Abdoulaye Sylla sooy dem sant de dialyse bi nekk euh, fii nii rek euh, euh, pas dalal jàng centre de dialyse bu mu inauguré récemment zone de captage zone de captage ci Grand Yoff jigéen ñi mag ñi moo tax mu def ko te naa ne su koy def c'est parce que yërmande bi mu am maanaam sa côté humain bi ne si moom bi mu am si en euh, si population wu Sénégal moo tax mu def ko école bi nekk fii muy Etika Abdoulaye Sylla da jël may ko jeunesse su Sénégal loolu dafay baax nit ñi di ko xam. ay nu ma leen ko waxee barki démb boog démb ndax démb maa ngi passé ba une heure du matin te damaa feebar ñoom ñëpp xam nañ loolu waaye dama ne euh, wat gaal ak yéego. ndax suñ dul waxtaan rek réeroo day am. démb heure bi maa ngi ko Fatou ba guddi wër na yàlla. laa la woo téléphone man awma heure si ñoom heure ma leen neexee wala ma leen nag dañuy dem si Émilie ndax daf ñuy booleeg leader la ndax loo wax danga koy waxaan may leen Émilie nag sama lépp la man ñeme naa ànd ak moom waaye yéen su ngeen àndul ak moom dama ànd ak moom ndax yéen la xam li laa ñu wax démb ma ne leen nag dañoo ànd lu yàgg te gisuma ennemi tey su mbokk amee damay daw si moom tey su politique amee yéen rek laa yaakaar ginnaaw yàlla sànq buñ duggee si biir loolu laa wax samay mbooloo luñ bëgg laa bëgg luñ bëggul bëgg la ndax nag joxuma leen cent francs joxuma leen dara loolu su ma ñëwee sax may leen jox leen ma paas damay ñibbi kii génn ñaar téeméer kii génn leen te dama koy yor sama poset waaye loolu mooy ànd oh. ànd balaa muy neex ngeen di tax financement yooyu yéen ko moom ndax tey su ma nee présidente laa te jéemuma kon dootuma présidente présidente jéem soo mënul lépp tam da ngay jéem ngeen ngeen nangul ma ko nag su ma indee dërëm ngeen jël su ma indee juróom ngeen jël lu ma leen wax démb rek ànd gu ñoo Ablaye dañoo ñëw pour waxtaan ak moom comme ma ko Émilie waxee laa leen ko waxee dara dem si ndax nee na ma Ablaye day jóg si jigéen ñi yónnee ma liste bi ma yónnee ko liste bi yëpp fu ma toog si président wan ko liste bi oh. ndax noonu lañuy ñuy àndee oh. ndax du ma wax ak Émilie fii dem wax ak yéen fee du ma ko def li seen liste yëpp a ngi si Émilie kon tey su ma ñëwee ñuy ñëw Émilie ne dafa ma ànd ak moom man yéen laay laaj lu ngeen wax rek laa wax maa ngi leen di déglu ngeen topp ma waaw ma jóg lu ngeen wax rek laa wax su ngeen nee déet ma ne déet su ngeen nee waaw ma ne waaw mbaadu a wax lu leer ndax dañ maa imposé démb ku mel ni Faye Diallo dafa mel ni mooy caatu groupe waaye dafa lakkale nee na ma dañ ñoo nax daaw si Ablaye Sylla tey ñu bëgg a ñëw gisuñu Ablaye Sylla bëgg ne dañ koy politique am yaa ma wax loolu wala wax leen ma loolu lii ngeen ma wax ñëpp ko wax léegi nag ñu ne ñoom dañ bëgg a jàkkaarloog du question xaalis du dara ndax nit soo yoree leket soo ko def jàppalul dara jàppaloo mbooloo mu nekk si ginnaaw ñoom loolu lañ bëgg kon tey loolu lañ ma wax loolu laa di jottali ñoom Ablaye lañ bëgg a toogal jàkkaarloo te loolu laa bëgg émi dama bëgg ñu jàkkaarloo Ablaye ndax nee naa ñoom ñooy sama xol yàlla seede na ko ñooy samay bopp ñooy samay lépp ndax koo woo mu jóg amoo fay kon ñoom li ñu bëgg rek laa bëgg.